jongo journal bi ba léegi toppee ko ak coowal produit phytosanitaire yi ak euh, njaaj yi nga xam ne moom lañ ko ciy tudd yéen kaay bi dañu ayda jong bu moytuwul dana fekk nday xadi géey ca kaso li tax journal bi nañu ma ngay gën tar ci booram ñaari enquêtes yi nga xamante ne ji waa division des investigations criminelles def nañu ko loolee jébbale nañu ko te it euh, yëf ya yamul foofee ndax it euh, lu aju ci rapport bi nga xamante ne ji ba bawoon na ci section recherche tey jii kon la ñu koy jébbale ci gàttal daal la journal bi gis moo di ayda jong moom ku yóbbu séntu ko ci ay jafe-jafe libération nañu bu ñëw lijjantee la ba noppi nañu lijjanti ji leneen mu di lan fukk ak juróom-ñaari milliards yoo xamante ne ji naax na ci ngelaw li dañu ko jëloon ngir jënd ci ay engrais ci wàllu campagne agricole 2012 milliards yooyee ba fi mu nekk ni yéene kaay bi nañu kenn tanewula ci fan la jaar ak it nan la ñu ko doxalee ñu dox tuuti dem ca bunduk Pape Samba indil ma xët mu njëkk populaire lu doy waar moo fa xew yéene kaay bi nañu bunduk boobee benn waay moo fa jëloon xaalisam góorgóorlu ba tabax l'école donte sax tabaxu ko waaye abri provisoire la waa dëkk ba ñoo jóg guddi la ñu jóg taal l'école boobee ndax bëgguñu ay école am ca bunduk la ñu bëgg moo di ay daara am fa la tax ñu def ko yéen kaay bi populaire xëy ci dellu siwaat ak ñun bunduk village ba nga xam ne fa la ñu tabax école mi nga xam ne abri provisoire la yéen kaay bi na ñoo diggam ak école ba nekk toll na ci 10 kilomètres moo tax ñu tabaxal leen ab école benn waaye bu ñu naan Mamadou Diallo moo def loolee waaye dafa xëy rek gis ñu daal taal li nga xam ne moo école boobee ba élèves amatuñu fu ñu a a di yalwaan gi yéene kaay bi di wal fajiri xëy ci dellu siwaat journal bi nañu ba fi mu nekk nii borom kaale yi ñoo ngi koy waxtaane ku ca nekk gis-gis ba nga ca amee yéene kaay bi di euh, wal fajiri xëy teg débat bi jox kàddu gi kii di Serigne Lamine ibn na Abba Sall nee na benn Serigne warta taxaw di défendre li nga xam ne moo di yalwaan gi keneen ki euh, yamu ca ndax mi nga xam ne ne euh, journal bi di wal fajiri nañu maître coranique di Serigne daara yi nga xam ne ñoo dekk ca diwaanu Kolda ñaawlu nañu dogal bu ni mel ba fa ñaawlu yam ñu fi bët mën a yam Pape Samba andil ma xët mu njëkk direct info ñu gis ko taax yi daanu bu ca nekk dañuy bàyyi ba mu daanu rek ñu jël ay matuwaay lii tax journal bii di direct info mel ne ku yëglu nee nañu ca diwaanu Yoff am na fa benn immeuble R plus 5 ci daanu la jëm yéen kaay bi nañu ma naari naar yaa ngi tax mu xëy indil ñu foto bi tegal ñu ko ne nga teg leen lële nële Pape Samba voilà léegi indil ma xët mu njëkku laa seen kaay mi ngook na ko téléspectateurs yi gis kii ngeen di gis ci mu njëkk mi moo di xuwaan xuwaan nag mi ngi bëgg a jaaxal ñu bari ci lamb ji moom xuwaan espagnol bi parcours fan la doore fan la commencé lépp la seen kaay xëy na ko dëxëñ xuwaan ki moom bu yàggul di Cobra ne ñu ci xët mu njëkk sunu làmb li xam ba xam ko moo di ku ñeme gàllaaj la espagnol bi dañu koo xeeb mais ku ñeme gàllaaj la ñu ne Cobra foo ko teg mu ne ndax ngembal xuwaan kenn kenn kenn kenn munu ko laal ma laal ba léegi li nga xam ne moom mooy sunu lamb ak Zos ma fa yëkkati ay kàddu Zos nee na Ama Balde mi ñu ko bëgg a jox moom dépassé na ko Zos a ko wax ñu ne léegi Zos fi mu ne loo jëm mu tontu ci observateur tontu ci laas tontu ci journal bi nga xamante ne ji moo di euh, direct info Zos la mu wax mooy combat bi muy sëggaat di bëre bu ñu ko fayul téeméeri million du ca bëre li mu bëgg mooy ñu fay ko téeméeri million tous les sports xëy ñun ci euh, kaddu yu bawoo ci Souleymane Camara kenn dootu ko présenté football katu Sénégal ba woon li mu fa wax nag du neex ñu bari ndax nee na équipe nationale bu Sénégal ku ko fi woowete du Sénégal ma arrêté loolee dellu ci observateur Pape Sambal li ma bëgg mooy euh, xët mu njëkk mi nga indil ma photo Miss ba fa nekk ak première dauphine ba ñu xoola ko mi ngook ñii la euh, euh, Pape li du neex a gis tegal ma mis bi nii indil ma première dauphine bi nii mangook ki ngeen di gis mooy Miss Sénégal 2013 ñu naan ko Marie Thérèse Ndiaye kii ngeen di gis ci wile wàll moom mooy Nafisatou Diagne mooy ki topp ci moom yéen kaay bi nañu coow ma nga ca léegi nag yéenay xool Miss beek dauphine bi ana kan moo ci dàq leen ko seen bopp en attendant damay lijjanti ji leneen muy lan ci populaire lu doy waar ca Gambie la xewe benn sénégalais boo xam ne dafa rey benn waay sénégalais bi mi ngi tudd euh, Malang Sonko la tax mu rey waajo jee ñu naan Mbemba Diallo mooy Mbemba Diallo dafay doxaan yaayu xale bi mu ñëw fekk ci kër gi dem jëli paaka jam ko ko fa la jaaree dee li dee dëgg mooy la xew ci 2STV grand place moo ci nekk démb ak bërki démb ak bërkaati démb xëy na ci dellu siwaat dafa jox kàddu gi ki nga xamante ne ji moom moo di Aïda Patra Aïda Patra li ngeen di gis ci xët mu njëkk bi nga xamante ne ji moom moo di euh, grand place waxi Aïda Patra la ndax nee na Nancy Eva def ko décevoir waaye ñoom waa grand place it kenn du ñoom waxi Aïda Patra la ñu andi xam ngeen ni kii nekk ci xët mu njëkk journal bi di grand place du photo Aïda Patra kii du Aïda Patra bëgg ngeen a xam kan la Pape taxawal du Patra kii mooy jërë ngeen jëf